mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu nu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci sangu sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi am mbégte mu yaatu ci ñëw di ànd ak yéen ci chaîne bu mag bile di def gis macha allah rabbi ki ko jiite di Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu koy nuyu bu baax di nuyu mboolem téléspectateur ak internautes yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ñoo am mbégte mu yaatu ci dikk di leen dégtal émission bi nga xamante ni mu ngi tudd démbi réew mi di ci ànd ak waa kër gi yëpp macha allah rabbi ngir waxtaane ci mbaax gi fi woon démb ak bërki démb maam yoroon ko muy kenn gu dëgër di taw woon réew mi mu bàyyil nu ko fi muy sunu ndono waaye di ci waxtaanee mbooram réew mi mboor di sunu histoire ci mag ñu baax ñi nga xam ne jaar nañ fi moo xam ci ngar mi la moo xam ci cëriñ la waaye di waxtaanee sunu mbatit sunu culture ci fànn yu bari ni ko mag ñi taxawee woon démb mu rafetoon lool doonoon kenn gu dëgërit gi nga xamante ni taw na sunuy jikko ak sunuy melo yu rafet ba taxoon démb nu dundoon dund gu dal waaye di ci waxtaane sunuy baax baaxi maam yi nga xamante ni ñi ngi fi di baax ñu bëgg koo jëlale bëgg a dem di jëggi leneen lu dul yiw di ko jëfe xay dinu jafe mu di toppandoo te bu yàggee mën noo sànk waaye di ci waxtaane sunu cosaan fa nga xamante ni sunu mbaax gii nu am muy sunu ndono fa la sosoo di sunu cëslaay yooyu yëpp ñu fas yéene àndandoo ci émission bii di démbi réew mi ngir di ci laayante biir di ci fàttalante ak a nettalante ndax wolof nee na bu doontoon fàttali ak nettali nu neex waay mu mel mu mel ni mbaax du ràpp mbaax gi fi woon démb ak bërki démb mbaax googu mooy wey di fi nekk ba keroog àddina di jeex waaye fu toll rek di ko waxtaanee ak di ko nettali ak di ko fàttali lee yàlla ñi nga xamante ni ñoo di ndaw ñi mel ni man ak ndaw ñii di ñëw ak sax mag ñi fi nekk ci fàttali ko ak di ci jànge mbaax ndax mbaax du ràpp tey nag ñu ñëw ci numéro bi nga xam ne mooy numéro bi ci jëkk fas yéene ci waxtaane kenn ci jàmbaari réew mi koo xamante ne nii jom ja ak ngarmi ga ak ngorgu gu ga waral na lu tax ñu koy waxtaane waaye di ci waxtaane koo xamante ne nii euh, tey jii ci réew mi way na fi way woo xam ne dootul fay ba keroog àddina di jeex ngir li nga xam ne def na ko fi ci jaloore waaye di waxtaane koo xamante ne nii askanam siiw na juddoom rafet na ci réew mi waaye bëgg am réewam ba mu jaral ko deretam loolu doon na loo xamante ni ba fi nu toll noo ngi koy waxtaane euh, bari na ci ndaw ñi ak ci mag ñi saa yuñ ko tuddee ñu bari seen xel dem ci njàmbaar kookule moo di Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ca Ngoone njàmbaas ak darnde moom lañ fas yéene waxtaane ngir ñu mën a roye ci moom lenn ci bëgg sa réew ngir ñu mën a roye ci moom ci lenn ci ay jikkoy jàmbar ak ngarmi ñu mën ci royee ci moom jom ak ngor gu matale ndax kat nekk ci am réew euh, la nga xamante ni moo di sa doole la nga xamante ni moo di sa njàmbar la nga xamante ni moo di saw fit lépp nga rangoo ko taxaw jàkkarloo ak ñi nga xamante ni ay noon lañ leen mën a tudde yoo xam ne dañoo ñëw doon fi ay gan jóge tugal ngir ñëw bëgg a jël sunu njariñal réew moo xam kaw suuf la mbaa biir réew biir suuf ngir dem jariñoo ko ñoom ci seeni pays bàyyi ñun ñuy ndóol Lat Joor bokkoon na ci ñi nga xamante ni dañoo taxawoon ngir dox tubaab bi diggante tubaab bi ak loole nga xamante ni bëggoon na koo taxawal ci réew mi euh, bala ñuy xuus ci waxtaan wi Lat Joor ni mu juddoo ci réew mi rafet bokk ak réew mi yëpp foo dégg càllala gu baax ci réew mi boo ko toppee Lat Joor bokk nag moom euh, saa xewar soxna mbay la bàyyam tudd mu ngi juddu ci mille mille huit cent quarante-deux foofu nga xamante ni moom moo di kër amadu Yàlla juddu ci diggante ñaari maam yu baax saa xewar soxna mbay baayam mu nga ca pël ga ca saa soxna mbay la ndeyam tudd bintu kura caam mbay ñaxana galgu koddu kumba jaana boob xàcc ndaw daara njaay penda sargan jeng kumba sàllam toora bur gédé wàllu ndeyam askanam siiw na waaye lat joor ngoone latiir saa soxna mbay baayam medun soxna ñaan medun soxna ñaan saxeor fatma barget saxeor fatma kulli koddu ngoy dow wegej wa mëngoo nem xel somboñ ba mbañ ganna leel ganna kunu kullu jàll gar njaan bardaagu geedoo geet geet njaajaan njaajaan njaay aboo daar daar noonu la juddoo ci wàlli bàyyi mu rafet lool ci ay càll la yoo xam ne yu tedd la boo ko toppee mu saaw ci réew mi bokk ak ñu bari waaye Lat Joor Ngoone Latiir euh, Ngoone Latiir Absa la ndeyam tudd Ngoone Latiir Absa dañ ko jox ma koddu koddu Juuf mu am ci Birima Ngoone Latiir wuré wa xàcc ñu jël Ngoone Latiir yóbbu ko kër koddu kulu gën a kulu koddu gànna mu am fa Lingeer Xuraja Mbooj ñu jox ko Sàmb mu am ci Sàmba Lawbe mi daanu ci gar bi ci Tiwaawan ca àllarba ja wa xàcc ñu jël ngoon Ngoone Latiir Absa doog ko jox nag saa soxna mbay kere ban ko joxee saa xewar soxna mbay dafa xas mu tax jigéen ñi war nañu bàyyi euh, bàyyi xel ci di xas ngir am doom joo xamante ni dañ koy tudd ci mbaax wala ci jom walla ci njàmbaar walla ci mbaax wala ci rafetal garab bi ñu ko joxee saa xewar soxna mbay jeeg ji dañ koo xaxar ne ko yow day sa baay daf laa may ak màgget Euh, deretam diir ko Ngoné ab sa tontu leen ne leen man sama baay bu ma maye woon ca lawbe ga danaa fa jur maalaw bu mën a gor moo tax Lat Joor kera bi nga xamante ne nii ma ngay dem Saalum fasam wi ma ngay dem siin ca buur siin booba fasam wi jenn waay la ko tudde woon ñu ne ko wundal ko mu ne fu mu jëm xam na fa waaye keroog ba mu demee siin buur siin léebu ko ci la fël laa bi fas wi xelam dem ca xas ba nga xamante ni yaayam xasoon na ko di ngoon laati ab sa mu daal di tuddee façon nag maanaam